bismillahi irrahmani irrahim dellu siwaat nanu sunu bindu silkul jawahir bu cheikh ahmadu bamba radiallahu anhu wa mooy sunu bindu fukk ak ñett mooy numéro treize bi sëriñ bi radiallahu anhu nee na wax ju am njariñ te gànjaru aljuuxu xiif yuurisu dana joxe mooy dana donale salaasata ashiyaa yetti mbir sofa al fuaadi sellu xol wa mawtal hawa ak deeg bànneex wala ilma ak xam-xam ar raqiqa bay aji sew mooy xam-xam boo xam neexut a xam faaw ak day laaj ak ràññatle nee na xiif dana la may ñett bu njëkk mooy xiif dana sellal ab xol ndax xol xam nga mooy généralu cër yi mooy kilifa cër yi su baaxee lépp baax waaye bu safaanoo lépp safaanu xol moom nag bokk na ci lees koy tàggate mooy wattandiku lekk ba suur këll ndax boo xasee ba suur këll rek eh, dëgg yàlla xol bi mu day daa di feebal ba ca tege mooy day rey bànneex lu ci ëpp nit ki eh, jamono yi may def mooy yàlla jamono yam koy gën a jekkoo mooy jamono yi nga xamee ne dafa lekk ba suur naan ba màndi jamono yooya bu noppee daanaka mooy yàlla lay gën a jekk waaye niwaana nit xiif eh, di mooy yàlla loola bariwut boo wooree sax daanaka yu bari doo ko tal waaye boo ndogoo rek njóobee ni nga gis ñu tàmbalee di bajantu lu nañu dugg ca <laughs> waaw ba ca mooy xam-xam mm, bu sew ba tey xiif dana maye xam-xam bu sew xam-xam boo xam ne du ñëpp a koy xam bu dee am njàng la day laaj liir bu baax ak mën a comprendre nga ne yu xóot mooy xam-xam bu xóot rek xikmatun beneen xikma wa qaala wax na yaxya bnu muaaz boroom xam-xam bu mag waxoon na ne li yëkkun na nekk xawul muumini cërub jullit bi min ka ceewa salaasa xisaalin di ñetti jikko tekkun kon da nga nekk minal muxsiniina di bokk ci al muxsinuuna gi alquran di wax mooy way rafetal ñi in lam tanfaaxu boo ko mënta jariñ fala tadurrahu bul ko lor wa in lam tasurrahu boo ko mënta bégloo fala taxummahu bul ko jàqloo wa in lam tamdaxu bu fekkee ne mënoo koo tagg fala tazummahu kon bul ko ŋàññi sëñ Muaz wala boog Yaxya ibnu Muaz nee na na fexe ba jullit bu nekk nanga ko may ñett mbir ci sa bopp na am cër waaw na am cër boo koy may ci sa bopp ñett gën gaa néew bu njëkk ba mooy loo man ci jariñ ko dee ko def boo dee ba mënoo koo jariñ nag na nga yem foofu waaye bul ko lor nag waaw bu fekkee dem nga xam nga daal mënoo koo jariñ lor nag moom bu mu jógee ci yow moom boo ko mënta bégloo nanga nga ba jàqloo moom bu mu jógee ci yow waaye loo mën ci bégloo def ko ba ree ba mënoo ko nag bul jàll ca di ko jàqloo déedéet ba ca tege nag mooy bu fekkee ne mënoo koo tagg xëy na amoo loo ko tagge kon nag di ko ŋàññi moom jëru ko ndax nit ki eh, benn nga xam ci moom lu baax képp subaa kon tagg rek nga ko mën a def seedal ko lu baax loolee wala nga xam ñaar ya lislaam ne waxal bu baax ba eh, safaan ba nga nga noppi ca boo dee ba xamuloo ko dara lu dul ab safaan nag te loolu jafe na subaa kon nang ca noppi bul ko ŋàññi bul tudd safaan yooyee bul tudd safaan yooyee wadkur mahaasina ma fihim ida zukiru euh, Cheikh Ahmadou Bamba waxoon ndeysaan kon mi ngi noonu te lu ci ëpp nag nit ki faaw da nga xam ci moom lu baax waaw ndax bu nekkoon nit naan sànga def nàngam faaw dana am jikko ju baax faaw da nga gis mu bëgg ay waajuram wala nga gis ko mu bëgg xale wala nga gis ko nag ñu ah, wax dëgg yàlla kii kii kii nag fen kenn mënu ko koo def loo wala li muy nàngam nangam day dañ koy gis nii euh, liggéey moom la bëgg kon nag jikko ju baax jooju wax ko rek wax ko kon ne na ñett yooyu na ko jullit bu nekk am ci yow xikmatun beneen xikma qaala wax na abu bakrin radiallahu anhu alsaxaabi aljalil ne salaasatu ñett man kunna fiihi waaw ku ñu nekk ci moom kunna alayhi dañuy këpp war sa kaw waaw ñetti mbir a yoo xam ne képp koo xam ne dafa nekk ci yow na la wóor sa kaw lay këpp waaw man kunna koo xam ne nekk nañu ñoom mbir yooyee fii ci moom kunna alayhi ñu nekk di këpp ci kawam rek ci kawam lay dal bu njëkk mooy albaxiyu moo di mbewte wal makru ak pexe wal naksu ak firi wëllëre li xawli taala ngir waxi saa borom subhanahu wa taala innama baxiyukum naka seenug bew day ala anfusikum day këppaat seen kaw rek waa ca yunus wa qawlihi taala wala yaxiiqu du wàcc al makru sayu pexe pexe mu ñaaw ma illa bi ahlihi ndara ca ña ko pexe woon ndara ci seenu ñooñ rek wa xawlihi subhanahu wa taala ne fa man nakasa képp ku firi wóllëre fa innama yankusu naka dana firi wóllëre ci boppam maanaam la cay juddoo ci moom lay këpp nee na ñett yii képp ku ko defet sa kaw lay këpp ba ci njëkk mooy bew ku bew rek mbewte la euh, sa bopp lay këpp ne ko alquran waxe mhm. képp koo xam ne day fexe lu bon wolof njaay sax moo ko wax yéen a néeg la borooma ca fanaan nee na lu yàgg-yàgg day dellusiwaat ca kooka rek waaw dafa mel ne balu teng si rek euh, boo ko dóoree ci suuf rek day ñëwaat ci yow noonu la mel lu bon noonu la mel mm-hmm. wax ju dëkkul fu mu jëm nee ñu wala fa koy wax fa mu jógee la cosaanoo ba ca teg mooy firi wóllëre ku ko def lu yàgg-yàgg day dellusiwaat sa kaw waaw Seydina Abubakar Siddiq moo wax yetti baat yooyu bu ci nekk mu tibbee ko ci alxuraan xam nga saxaaba yi alxuraan la ñuy dund xikmatun lii beneen xikma la waxii la waxees na ne xayrul xayrul ashyaa li gën ci mbir yi lil mar i ñeel as cem cem mooy nit ki salaasatun ñett yii la aqlun xel moo xam ne yaisu bihi ci lay dunde wa maalun ak alal joo xam ne yejjitani bu dana teet dana wattandiku bihi ci moom su suali naasi walis laaj laaj nit ñi wa ixwaanun ak ay mbokk yoo xam ne yurshidunahu danañ ko orienté danañ ko jubal ila shawaabi jëm ci njub ga nee ñu doomu aadama ju nekk ñett moo gën ci yow bu njëkk mooy xel mooy jëfandikoo ngir nga mën a dund dund ko ñoŋ ndax ku amul xel rek mu doy waar ba ci teg mooy yàlla may la alal wërsëg woo xam ne boo amul lu ne gàññit da nga am loo xam ne da nga mën da nga mën a mucc ba doo dem di laaj nit ñi waaw lu la euh, dem di tàllal li ngay dund nga bëgg koo yaakaar ci nit ñi ak nit ñi ak nit ñi doy waar waaw set ne boo toogee rek ndeysaan ñu xam ne la ngay laaj nit dañuy daal ngay daal di découragé ndeysaan euh, découragé ndeysaan ñenn ñi sax duñu la bëgg a déglu a nit bu ñëwee di laaj moom ñaara mën a am boo amee daal yëkkatil ngir yàlla jox ko la nga am bu fekkee amutit dalal ko ba dalal xelam ñaanal ko yàlla su ko defee nga la ko dogal ngànt ne ko xam naa de weneen yoon rek tey da ma sant Jóob waaw ñu ngi lay ñaan na nga muñ nag te xam ne lii nangam nangam nangam waaw mu fa baat bu baat bu waaye joxoo ko ba noppi naan ñii nii rek def duñ liggéey wax dëgg loolu nag da ci yenu bàkkaar nag mën naa ñàkk moom waaw mën naa ñàkk xikmatun beneen xikma ngi nii de xam naa xikma yi ñuy wax nag benn bu ci nekk ak dund la boo ci jëloon benn jéem a orienté dund di ko roy rek daanaka moom sa adduna day daal di jag yàlla yàlla defal dégg ak topp wa an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama mu ne jëlee nañ ci yonent bi yàlla bi mu ne arbaatun ñeent min sunnanil mursalina mi ngi bokk ci sunna yi yonent yonent ya waaw ci seenum njàngale ak seenu doxalin alxitaanu xaraf wa taaturu ak gëttu mooy xeeñ parfum wa nikaaw ak denc soxna wa siwaaku ak socc ne nañ ñeent yi yonent yépp dañ koo fonkoon dafa bokk ci seeni sun sunna ñoom yonante yi ba ca njëkk mooy xaraf xaraf mi ñuy defal góor waaw bu dee ci góor na la bu dee jigéen nag eh, bu fekkee ne du ko wàññi dara fekkee du ko wàññi dara ka koy def xam na ko du am ay tooxi doona eh, kooko moom du àgg ci sunna waaye teraanga rek la ndax li ñuy xarafal ci jigéen mooy day jigéen ñoo xam ne eh, seen pëy mooy seen sawukaay daa am lu cay génne mel sa mel na dogu ndawal nga xam ne loolu mën naa indi yu bare bari mën naa tax sobee di ko jege eh, mën naa yàq kanamam yu bari mën na caa génne loola lañ daa dagg waaw ah, ngir suturaale ko moo tax ñu ne teraanga la waaw ah, bu ñu demee ba wax dëgg yàlla ay di yor ay paak lu ne lu ne mën xaj nag ñu far ko bàyyi waaw ah, da ngay dégg ay nit naa ko santaane déedéet lislaam santaaniwu ko lislaam santaaniwut xarafal jigéen santaaniwu ko ay aada yoo xam lislaam da ko fee fekk waaye santaaniwu ko de ba mu ñëwee tamit diggali ko téerewu ko daa ñëw daan ne ñu ne ko ñi ngi koy def yonent bi salaa salaam mu ne ah, ku koy def ñu ne ko maire diw waaw mu ne nañ dem ma xool ba xam ba ma àggee laaj ko posé ko ay question ndaw sa tontu ko ak jumtukaay yam koy defee ak nangam naa yoon nga ah, na nga wattandiku nangam na nga wattandiku dagg lu bokk ci awra awra bi moom waaw ah, na nga wattandiku di dagg loo xam ne daa bokk ci awra bi na nga ko wattandiku kon booy ton ni na nga tonni loolu nga xam ne bokk ci na ko tonni ci kaw rek kon ñu bàyyi ci xel du jëru ñaan dañuy xeex lislaam lislaam da ko déedéet lislaam santaariwu ko daa fekk aada ñu koy def mu xool Euh, joxe ci orientation ne buñ ko mënta ñàkk def daal nañ fexe ba nangam bii nañ ko wattale ko kon nag buñ nee ba muy yàq nag euh, te confirmé ñu wane ne day day yàq wala day jur nangam nangam kooku moom ma def na koo bàyyi kon ba ci njëkk mooy xaraf ñaareel bi mooy am xet gu neex parfum waaw yonente dañu yor xet gu neex waaw yonente bi salaaw salaam euh, ak ña ko roy buñ masaan ne tëll di génn bokk na ci li ngay xamee ne génn lañ sax mooy xet xetu parfum ba ca teg mooy denc soxna daa bokk ci seen na waaw boo xoolee ña ko ci defut daanaka ay benn ak ñaar lay doon waaye ñoom ñëpp dañuy denc soxna te ne xamuñu sax ab yonent boo xam ne benn soxna képp la am sax moom far benn nga xam ne benn dong dong am <laughs> loolu euh, jafe na naa boo jigéen aadama mi nga xam ne euh, kañ ko bindal aada xawa mañ ko bindal kooku daa nekkoon kenn waaye yonent yëpp dañ duñ ko benn soxna mhm. ak lan ak socc waaw yonente ñoo fonkoon socc kon civilisé daal ci gàttal civilisé dañ koo fonkoon mooy li ñu tuddee xay xikmatun li beneen xikma la nee na arbaatun ñeent la na du ñu suur min arbaatin ci ñeent aynun bët du suur min al nazari ci xool wa suuf du suur min al matari ci taw wa unsa jigéen du suur min al dakari ci sëy maanaam ci sàkkar sawukaay góor wa aalimun waram xam-xam du suur mukk min al ilmi ci xam-xam waaw nee ñeent du suur ci ñeent bët du suur ci xool bët moom lu mu xool day xool ba faatu rek waaye du dem ba yàgg mu ne li ma xool doy na waaw suuf du suur mukk wala boog nu màndi mukk ci ab taw même bu màndee léegi tamit bu ci kanamee mu soxlawaat ko moo tax nawet bu jot mu tawaat nawet bu jot mu tawaat hmm. jigéen jigéen du doyal ci bànneexub góor du ci doyal lu ci ëpp góor ga mooy njëkk a sonn wala mu njëkk caa xaddi wala nàngam waaye jigéen ji moom ñaare du ca doyal te it bu ca sonnoon it bu ëllëgee mu soxlawaat doo ca doyal moo tax xam foo ca yem ba ca rek mooy boroom xam-xam du doyal mukk du suur ci xam-xam dafa mel ne ñi gën a jàng sax ñoo gën xiif xam-xam waaw boroom xam dëgg-dëgg boo ko laajoon na man daal rëccu naa li tax àggaliwuma sama njàng wala nangam nang moom du ci suur ndax xam-xam loo ci gën a lekk di ko di ko gën a bëgg moom yàlla ko bi ne noonu wa anhu aydan jëlee nañ ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallama waaw moo tax mu ne wa anhu aydan mu ne leen mu ne arbaun ñeent yadhab na dem nañu bayaan ci neen ah am na ñeent yoo xam ne eh, day sànku rek ah, buy dem day dem ci neen maanaam du am njariñ bu njëkk moo de al aklu lekk ma shibai ànd ak suur fekk nga rek ba nag di lekk wa siraaju ak taalub làmp fil xamari ca weeru leer wa wa zaru ak mbay eh, fi sabxati ca ceeñ ceeñ mooy suuf su am xorom nga xam ne mënta saxal dara eh, dégg bu njëkk ba rek mu ne wax saniatu ak njekk ila gayri ahliha nga jëme ko ci ñu bokkut ak ña ko yelloo jëme ko ñu dul ñoñam waaw waaw nee na yii boo ko defee ñeent yii dañuy sànku rek nga lekk nga suur ba noppi ñu teg lekk ngay lekkaat la ngay lekk lor nga ci jël waaye doo ci amee njariñ ndax lekk li muy jariñ mooy rek tey rek nga ba noppi kon am na ba noppi mu njëkk ba mooy mu leer naññ da ko misaale weer rek xam nga weer yi mu nekk mu amee fukki fukki fan ñett ak ñeent day leer ba ngay taalu làmp nga ne làmp du jariñ dara bu doon jamono ji nag naan naaju ne dàng ngay taal bu làmp rek <laughs> ngay taal bu làmp ndeysaan waaw tubaarkàlla la njóobeen ba defoon ba xaalisam ba réeree xam naa dafa saalit mu wëru ba sonn gisu ko mu taal bu làmp di di di nit ci jant bi waaw di nit ñu ne ko ndeysaan waaw yàlla yàlla yërëm leen ñoom njóobeen loolu ak cànkuteel amul amul njariñ ndax leer moom am na ba noppi te moom nga bëggoon ba ci tege mooy nga fekk suuf su am xorom nga di fa bay suuf yooyu nga xam ne mënta saxal nga di fa bay waaw nga defa bàyyi nga ne du sax te kuy bay sax nga bëgg ba ca tege nag oo dëgg yàlla njekk dëgg la dees na ko def ngir yàlla waaye nag nga nga di ko defal nag ña ko yelloo nga di ko defal ña ko yelloo ña xam waaye boo ko defalee baadoola nag ah, tabarkàlla daanaka sànku na waaw ah, na hal jazaa'ul ihsaan illa al ihsaan doonte yàllaa tax waaw ah, ki lay jox doonte yàllaa tax ne jërëjëf bul wax li ma jox yàllaa tax jëru ma di ko wax doonte yàllaa tax yow it boo jekkoo defal ko ndax adduna mooy mooy demee noonu xikmatun beneen xikma nee na arbaun ñeent law shuddat bu fekkoon ne takk nañu ilayhinna jëm ca ñoom ar rixaalu laxas ya waaw la kaana mu nekk xalilan di aji néew fi xaqiha ci seen xaq dinaa ñëw ci maanaa mi ashaddu rixaali ñu bari xam nañ ko laa yarjoo du yaakaar abdun ab jaam illaa rabbahu ku dul boroomam yaxaafu ab jaamit du ragal illaa zanbahu ndara bàkkaaram wala yastaxi te du rus al aljaahilu aji réer ja an yataallama mu xam lu ci wala yastaxi te du rus al aalimu boroom xam-xam ba isaa su ila buñ ko laajee am maa laa yaalamu ci lu mu xamut an yaqul mu wax ne laa adri waaw nee ñeent jar na xëy suba rek takkaayoo dem wuti leen te loolu boo ko defee sax ba tey mëtaloo seen àq saddu rixaali mooy nga jóg takku wala nga war saw fas wala nga dugg avion maanaam voyage bu sori waaw jog jóg daal waaj ngir fas yéen dem fu sori tal lenn dong moo la tax a jóg loolu mooy saddu rixaal waaw saddu rixaal waaw jóg rek dara dong nga yëkkati la nga jóg takk sa laxasaay yób wut sa yóbbal ak lépp lu yoon wi laaj nga jóg ngir wuti loola nee na ñeent yi nag képp ku takk laxasaay ngir wuti leen ñoom dong eh, loola jar na ko ba ëpp sax jar na ko ba ëpp waaw bu njëkk ba nee na jaam boo xam ne yàlla dimbali na ko ba du yaakaar ku dul yàlla nee na loolu bu fekkoon nañ ko war a wuti ci ab barab jana takk sa laxasaay di wuti ko waaw waaw jaam boo xam ne dem na ba yaakaarutul ku dul yàlla ak jaam boo xam ne dem na ba ragalut lu dul bàkkaaram lenn daal la ragal ginnaaw yàlla muy ay bàkkaaram ñoom doog ñoo mat a ragal ak ku xamut koo xam ne rusta jàngi waaw koo xam ne dafa dafa amul xam-xam waaw yàlla dimbale ko ba rusta dem jàngi waaw lu mu xamut day ñëw laaj ne nangam bi luñ nangam nangam donte kam koy laaj xale la sax du ko rus nee na loolu jar naa wuti de bu doon lu nekk ci barab la jar naa takku dem wuti ko ba ci tege mooy borom xam-xam boo xam ne buñ ko laajee mu xamut mu bañ a ruus ne man xawuma ko waaw borom xam-xam day wax naan man xawuma di nangam waaye bu dee luñ la laaj nga koo tontu loola tabarkal day indi moo tax benn borom xam-xam bari xam-xam loolu yor ay téeméeri yoo xam ne rek dong ay borom xam yu mag lañu benn bis ñu laaj mu ne loolu xawuma ko ñu ne ko ah, waaw sëñ yow sa taalibe yi ak niñ toll gaa yi ñuy wër la bu doon le bu doon jamono jii rek waaw ñu ne ko internet baa ngi tàkk rajo yaa ngi lay déglu nga naan xew ma ko loolu doo ko ruus mu a yéen yéen a dof malaaka yi sax ba leen yàlla laajee eh, lañ xamul dañu ko xamuñu ko <laughs> laa ilma lana illa ma allamtana <laughs> te malaaka day bëri xam-xam waaw malaaka yi rusuñu woon wax loola kon borom xam-xam eh, ndax mënta xam lépp daa am lu muy xam rek daa am lu xam am lu mu umpale ndeysaan lu bare bare da koy umpale wala nga fat doo ko xam kon nee na xam-xam bu fekk bu fekkoon Eh, yàlla dimbale la nga am tawfiq lu ñu la laaj ci xamoo nga ne xawuma ko loola bu doon lu ñuy wuti la jar na takk dem wuti ko hmm. jar na takk dem dem wuti ko ndeysaan nisful ilmi laa adri imam malik lu jege téeméer laaj mu ñaar ñett ñeent li ci des lépp mu ne ko ñu ne nangam xawma nangam mu taxaw xalaat xawma ko <laughs> imam malik la waxaale wax na ñu bari xam nañ ko xaamisul xulafaa xaamisul xulafaa moo baax ba nit ñi euh, ne kii daanaka rek ma ne sa ko boole ca saxaaba ya donte bokku ci nag saxaaba moom amul moroom waaw ci jikko ak defaru rek jikko ak defaru rek ñu ne kii moom dafa mel ne bokku ci génération bi ca génération saxaaba ya la bokk ngir maandu ak nangam nangam ku siiw la yàlla yàlla fayal na ko radiallahu anhu yàlla na ko yàlla gërëm lu mu wax nee na ahabul ashyaa yi gën gaa sopp ci mbir yi ilallaahi jëm ci yàlla arbaatun ñeent la waaw ah, loolu nag waxiin la waaye boo ko fiiree dëgg-dëgg mooy li yàlla gën a sopp ci mbir yi rek ahabul ashiyaay ilallaahi li yàlla gën a bëgg arbaxatun ñeent la alfadlu moo di man ko ko firee joxe joxe teraanga indal jiddati muur ma wala am nga waaw wala nga ne gënal mooy joxe rek ndal jiddati fa muur ma waaw indal jiddati fa muur ma Mhm. wala afu ak jéggale indal qudrati fa mën a fayu ga wala xilmu ak lebet indal gadabi fa mer ma wa rifqu ak ñeewant bil ibaadi ci jaam ñi waaw nee na yàlla ñeent yi la gën a bëgg bu njëkk ba mooy bu la yàlla joxee dara nga nangu koo bokk waaw nga nangu koo nga nangu koo bokk waaw bu la yàlla joxee dara tabarkal borom téere bi nag nee na mooy alqasdu indal jiddati wala bokk mu ne ay al iqtisaadu wa tawassutu waaw nee na ba tey maanaam mooy lan mooy boo amee xéewalit du tee nga digg doomu maanaam am lu bari bu mu tax nga yàq am lu bari am naa ko mën naa ko bu mu la ko tax a def léeg-léeg am na loo xam ne danga ko am danga ko man waaye du tee rek nga wàccee sa bopp mhm. moom noonu la ko fiiree mhm. ba ca ba ca mooy lan mooy nga mën a fayu ba noppi jéggale waaw loolu nag moo jafe ñu bari ci nit ñi dañuy ñàkk pexe rek waaw bàyyi naa la ak yàlla fekk dañ caa mënul dara waaye loo xam ne man nga koo faj man nga koo faj nga daat ko nga daat ko jéggal ngir jëmmi yàlla waaw mu ngi noonu ba ca teg mooy koo xam ne bu meree fale ak lewetam di feeñee waaw loolu day sang dëgg ko man ñu bari ci ñu mel ne nun seenug lewet mooy day fekk mer amagul rek wala tooñoo leen waaye mer ànd ak sa sago mer lewet waaw ne ko yonante bi sallallahu alayhi daan defee loolu day moom yombut waaw ma waaj ñëwee eh, fekk mu toog mu ne ko yow Muhammad eh, dégg nga eh, doo fay bor nangam nangam sama bor bi nga ma ameel nangam nangam yéen seen waa kër duñ fay bor nangam nangam ba sa Seydina Omar jóg na yonante bi kii tee nga maa jox ndigal ak ma dagg ma dagg bopp bi kii ñàkk na teggin yonante bi ne ko déet bul ko tooñ nag waaw ne ko booy attee atteel dëgg rek nag yow it doonte sama taalibe nga dëgg la maa ko ameel bor waaye nag moom mii da koy wax ne ko Euh, sëñ bi de dëgg la dañ laa amee yonante bi moo la ameel bor waaye booy fayeeku na rafet ndax nit da ngay rafet jikko man mii ko amee it nga wax ak man ne ma euh, yow mi su li ngay doon doon suñu kilifa nag comme yaa ko ameel euh, boo ko mënee fay bor bi fay ko yonante bi sallallahu alayhi wasallam <laughs> te waa ji ne ku koy poñe waaw fekk fekk la say digg taalibe ñu gëm la lool nga ñëw mel ne kuy poñe nit ki naa ko nangam doo fay ko te bor seen waa kër nangam nangam waaye bu doon jamono ji waaw bu doon jamono ji bu la gars yi di def lañ lay def daanaka tabarkàlla waaw am na benn eh, ku jóge ca kaw ka moom nga xam ne xamul xamul xamul dara ñëw fekk yoronte bi toog saxaaba yi toog mu ñëw ba ca jàkk ji rek moom daal di tàmbalee tuur ndox moom yoona newu ci saxaaba yi jóg ne yonent ne déet bàyyi leen ko bàyyi leen ko bàyyi leen ko mu ah, leen ko <laughs> bàyyi leen ko ndeysaan ci jàkka ji ndax daa mu daal tuur ndox tuur ba noppi yonent bi ne nañ jël sewa ndox rek ci misaal baagu ndox nañ ko fa sotti rek sobe sa jeex na bu ko fa sottee rek su ko dee ndox mu laab mi moo ëpp doole sobe si su ko dee ginnaaw bi ñu ne ko eh, cheikh bi lii de jàkka xam naa da nga koo xamut waaye barab bi barabu jaamukaay yàlla la fii kenn du fi def lu mel nii waaw waaw daal di saalit daane suñ borom eh, yàlla nag ma yàlla nag ma yàlla nag ma yërëm maag maag maag dong <laughs> ndax moo comprendre <laughs> ñu ne ko déedéet kenn du ñaane noonu nag booy ñaan ñaan gi na yaatu kooku moom waaye rek des koy roy nag du ñëw rek naa yonent bi du nit du nangam xakay ah dañ koy roy nag ndax nag euh, tabar yonent yàlla saabar moo na ko roy law kon boo meree lewet ba ca teg mooy di ñeewante jaam yi di ñeewante jaam yi su ko defee boo ko defee yàlla yërëm la xikmatun li benn xikam la nee na arbaatun ñeent taxtaaju ila arbaatin day aajo woo jëm ci ñeent ñeent day day day day soxla woo ñeent waaw maanaam ñeent yoo xam ne benn bu ci nekk day ànd benn njariñ la doo ko feeñ bu njëkk mu ne mu ne alxasabu ngor mooy bokk ci askan bu baax day aajo wa lil adabi jëm ci ay teggin mooy nga boole ci ami teggin nag wa sorooru mbégte lil am ni day aajo wa jëm ci kóolute mooy sécurité wala xaraabatu jege ñaale lil mawaddati ñeel cofeel day aajo wa jëm ci cofeel wala xaqlu xel li tajriba day aajo wa jëm ci tajriba mooy testé mooy nekk di ci xalaat di sotti di jubal euh, xel day xalaat di xelli kon ñeent yi nee na benn bu ci nekk day ajoo beneen day ajowoo beneen day ànd ak moroom ja daal boo ci am rek daa am lu muy soxla bu fekkee am bokk nga ci askan wu baax faaw da nga cee sa jëmmi boppam nag nga am ay teggin nga am ay teggin waaye kat bu fekkee da bokk ci askan wu baax te wax amoo ay teggin nag day mel ne bokkoo ci te moo ne ka bukkul sax bu yore teggin ne suñ Sëñ Tuubaa waxee woon yu fi jahalatan wa qubhan nasabi teggin boo ko amee sa saw askan wu baaxut ak sa réer ak yu bare bare du feeñati ndax teggin moo koy muur waaw nga gis nit mu bokk ca sang ya te moo ne ci askan de bokk ca nga gis nit bokk ca dereti askan ya waaye ma ngay bokk ci ñi gën a yées naa kon deret naanaka du dara hmm. kon mbokk yu baax ak cosaan lu baax day ajowoo yow sa jëm bopp nga baax ba ca tege mooy bigg ko kontaan nag day fekk sécurité am maanaam kaaraange waaw loo mën a yor ci alal nangam nangam ta bi set ñu ne kër gi taqaloo sa kër diw di dugg nañ fa ray ne nag nga xam ne amoo sécurité doo bég ah, bala ngaa mën a bég de ak a kontaan faaw da am nga sécurité de <laughs> ba tege nag mooy jege ñaale bu ca bëggante amut amul njariñ waaw diw sama mbokk la diw sama mag la sama nangam fekk bëggante amu ca jege ñaale kooku du am njariñ ba ca tege mu ne xel xalaat di xel li lay jariñ waaye fekk loo neex neex xel te jëfandikoo ko ba te du am njariñ waaw xel mi kay day feeñ nga di ko jëfandikoo di xalaat léeg-léeg problème am nga xalaat xel li nag nañ def nangam ñu la ah lii de macha allah xel loolu lay jëriñ wallahu taala aalam